sama kër waaw wari seete gone gu sawar la loo ko yónni rek mu indi ko te kat soo ko jëli mu ne ka ko yónni jot na ca man xawma koo xalaat waaye kooku da def contrat ñu mbàkke wax nga dëgg de dégg nga sadaxa jaariya mooy loolu ilmun yuntafau bi xam-xam bu ñuy jariñoo seede yaa ngi sama ndey joor xam-xam bu ñu jëriñoo góor gi yàlla dafa def dafa amoon xam-xamu économie xam-xamu yaxantu ci xam dara xam na dara fii ba Tambacounda waaw góor gi gay Tamba am na lu ci gaa yi xam de affaire xeetu Sonadis yooyee sel avion yooyee boulangerie yooyee njaayum guro am na lu ngeen ci ñam ko jangalon amna ci ko xamni ki ma nga ne tok fi ne moy moy chefu gaay yi boulangerie yi mu mburu yeeg yooyu ma nga ne leg leg ma deg ko ma dañuy geraw parce que daal mu yeng yeng <laughs> mu nga ne keroog mo bëgg sam so boulangerie mom mi la wo moo ko Cheikh Gaye ñoo fa ànd dëgg la wallahi ndeysaan donc xam-xam bu ñuy jëriñoo mbacké du daxal dugg naag baada dedet xam-xam bu ñuy jëriñoo moy technique bi nga def ba nit ñi di mën a di dund chérif yaa ngi yewee ko xayaakallah wa akramaka jërëjëf dégg nga bi ci mujj peut ci la jeexale mooy waladun saalix yadu la saas ngeer mu ne waladun ne saalix ne yadu la dom ju bax ju ñaan pour yow kon nak fami bi def ni nu ñëw fi yendu fi naan fi ndox ndox walu moy sama partenaire kat walu de ko naan <laughs> oustaz boo xam ne bii fu mu toll rek tubaarkàlla mu ngi business ak commerce waaye baax na nag <laughs> dégg nga bu nu fi yendoo naan fi ndox yendu fi dank fi ceeb yendu fi lekk fi fruit naan fi lëwal te alayhi salaatu salaam wax ne benn tib ci biiru ku ku xiif wecc na tuyaabay juróom-ñaari jàkka ah loolu baax na de loolu baax na kon xam-xam bu ñuy jariñoo sarax bu jeexut léegi ak doom ju baax ju ñaanal wa juróom ndax xam ngeen ñi fi jógee dem ba sàq mbàkke am na ñooñ ndeysaan fi ne ay doxandéem lañ moo tax ci ci añi doxandéem yi añ ci la ñuy reer mooy ki nga xam ne ay mbokkam kenn du ko ci ñaanal moom daal bu amee ñaan mooy gaa yi dañu nañ jàng falax naa si ñaanal ñoom diw rek waaye moom ñaanu spécial du ko am mujibatil mujibatil waaw mujibatil mujibatil malaati ba wu doone mujibatil mujibatil malaami wax leen Maodo Maodo yaa bëgg yónnee bi wax ca kaw mujibatil mujibatil الملام مودوك موجبة الموجبة الملام باي سن بابكر موجبة الموجبة الملام واو واو واو مودوك يا فقيرنا يا حي يا ذا الجلال والكمال ومنتهى كل شكوى مولاي مقت النفالي بالباب عبد ضعيف ذنوبه كالجبال بانكسار ودعف مع ذلة وابتهال وحاله ليس يخفى آه. عليك يا ذا المعالي ولا تخيب رجائي مددت يا إي ودائي إليك ما حسن ظن فيسر سؤالي كن دافعا يا إلهي شر الحسود وقالي وكاشفا كل ضر عنا شديد المحال إني أصبت بداء لطيف يا متعالي والداء في جسمي مولاي يا خير والي وليس لي من طبيب سواك يا ذا الجلال عنجل شفاعا إلهي لنا حميد الفعال ونجنا من شرور البلاء والضائر بجاي أحمد خير الورى وصحب الوآل وشيخنا في المزايا أحمد قد بالرجال ونجل عثمان شيخي الشيوخ حسني سمالي كذا الخليفة بحر علومنا في الدلال العديم المثال كذا الصغير حبيب إلى إصاف القصال جاي منك نرجو سعادة كل حال وموتنا في طريق الهمام عز السلال مولاي صلاة تدري بعد الله على شفيع البرايا أحمد شمس الزال على شفيع البرايا أحمد شمس الزوال على شفيع البرايا أحمد شمس الزوال على شفيع شمس الزوال على شمس البرايا أحمل شمس الزوال والآل والصعب العزد هدات يوم النضال ما قال بالله عبد ضعيف يا حي يا ذا الجلالين يا ذا الجلال ما قال الحاج عبد مولاي دبخ يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد الكيف يا حي يا ذا الجلال ما قال ما الله بخن يا حي يا ذا الجلال ما قرأ درسنا يا حي يا ذا الجلال ما قال مام الله عبد ملاي دبان يا حي يا صبر دباخ

baam yaa xayu yaa ku sopp Abdu defal ni sa loxo ca kaw ma qaala abduka hada yaa xayu yaa dal jalaale ma qaala maam allah Abdu Mulaay da baax ni yaa xayu yaa dal jalaale يا ذا الجلال ما قال الله عبد مولاي فخري يا حي يا ذا الجلال ما قال عبدك هذا يا حي يا ذا الجلال سيدي الحاج عبد العزيز سمالكنا يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد يا حي يا ذا الجلال يا سيد الحاج عبد العزيز سمالكنا يا حي يا ذا الجلال قال عبدك هذا يا حي يا ذا الجلال سيد الحاج عبد العزيز اقدر سننا يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد المتاز يا حي يا ذا الجلال سيد الحاج عبد العزيز سمع لنا يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد الكازا أه. يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد ضعيف يا حي يا ذا الجلال النبي ما قال عبدك هذا أه. يا حي يا ذا الجلال ما آه، قال عبد ضعيف يا حي يا ذا الجلال ما طلبك هذا يا حي يا ذا الجلال ما قال ضعيف يا حي يا ذا الجلال النبي يا ربنا صل على خير البراء يا ذي احمد التاج الفضلاء واهله والحشم يا ربنا صل على خير البرايا ذي العلا محمد تاج الفضلاء والي والحشم النبي مملم صلى الله عليه jauna mumu ah ukda uh, tuna ayu zukhur ayu zukhur ñaanal waajuram day tax bu ëllëgee foofu naa yéen ñiy dem ci hôpitaux yi togg dóor leen ko loolu nag ak ñaan koy dem ci waajur mu génn àdduna wala mbokk mu génn àdduna loolu lay tekki moo tax daje yi itam ñu am ci bàyyi xel ci loolu moo tax sukka bam jot nu bàyyi ko julli ji te ñëw àggale dégg naa sëriñ aadi moo daan wax loolu mu ne nañu bàyyi naan nañ àggale te julli nañu wax nañ julli te àggale na yi nga xam ne moom la mag ñi doon fàggul ñi ñëw seen ginnaaw ci la yi bokk ci la yi bokk fexe ba nga am loo xam ci kin yónni woon ci noonu mag mu nekk am na matt goo xam ne ma nga ca àll ba te boo sañoon am ku la ko jëlali bu sunu ñaan nangoo ca ndaw ña ak njaboot gi danañ jëli matt ga tabarkalla nee ci la bokk <laughs> lu amul seede baaxut kon yii la mag ñi doon def sëñ Mbàkke ba faggul ñi ci yii nu ci ame ñu ñëw ronu tànt yi jàng mbindum mag ñi ñu jàngal ñu kooku nga xam ne am ñu ku dul moom muy sallallahu alayhi wa moom nag dundam gi yépp la yàlla jël may ko nit ñi nga xam ne lu ne nam ko defe noonu la lu ne nam ko defe noonu la jàng naa ci jës bu biis diyaadul minnati mam si tubaa nee ku bëgg yokk rek del gàmm ku bëgg yokk rek del gàmmu boo gàmmoo gàmmoo ti yokkuwoo seetal sa bopp boo gàmmoo gàmmooti yokkuwoo seddal sa bopp bis diyaajul minnati sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónneenu ko te sunu école yi dun ko ci jàng xëy na am na classe booy tollu xawma booy def quatrième la xawma ñu cofal la ci Mahomet et les quatre califes <laughs> nga weesu ko mu jaax te soo yemee ci leçon yooyu li ngay am ci yonent bi du doy te it leçon yooyu du la wax ne dañ koo war a bëgg ndax bëgg gi farata la la ca cofe rek mooy kon ku la wax nga ne ko gënoo maa nekk jullit wala jullit laa comme yow mag ñi nag di def lii léeg-léeg nga gis ku toog fi mu toog di dégg ñuy tudd yonent bi yaramam di yëg loo xam ne mënu ko wax nit ñi waaw yaramam di yëg loo xam ne mënu ko wax nit ñi sallallahu alayhi wa sallam ndax nun la mel ci xol yi ndax yàllaa ko yónni ci ruux yi waaw waaw sëñ Abbas Sàllum Louga moo daan wax ne tey bis buñ ko xamee ko ak ah, xamagun ko mu ne mukk xam nga luñ ci xama ma ne ko luñ ci xam mu ne mooy ko toog ci kerug màngo yëg na ci ker garab la toog rek mu ne waaye yëg ne garab gi màngo la màngo gi meññ na meññit mi saf na nee yooyu àgg guñ ceeg Muhammad mu ne foofu rek lañ yem mooy xam ne daal ci ker lañ toog ma que man toog mu yàgg mu ne cey bi suñ ko xamee suñ Abbas Sall mooy ko daan wax ci Louga cey buñ ko xamee waaye mag ñi nag bëggoon nañ ñu xam ko ñu bindi xasiida jàngale siiraam jàngale ay jaar-jaaram ba ñoom ñëpp ku ci nekk def ci lef mu yaatu yal na yàlla fayal ñu leen yal na yàlla fayal ñu leen yooyu nag biñ ko daan tëral yoon biñ koy jaare mooy rëdd loo xam ne ku ko yëkkati ku ko dégg sa yaram ndaw moo moo jur xasida yi nga gis ndax xam nañ ne yonent bi bëgg na ko ndax kero ba ko kaab waxee yam ko wax wax ko saabi wax ko alxuraan yàlla dafa yónnee ne ku indi bopp kaab xayyan wa mayitaa ma faggul la aljanna bañ ko waree lu jiitu ñu koy jàpp ba mu ñëwee moom tuub si kaab ak xasiida la indi moom yonent bi ci xasiida ga moom ci xasiida ga ba yonent bi may ko mu soloon waaw summi mbubb mi xëpp ko kaab saaba ya njañse <laughs> saaba ya njañse ñii may koy dàll ya ñii summi seen mbaxana jox ko ñii tekki seeni weer jox ko mbubb ma mu ngi fii ci turki dañ ko doon jaayante ba mu agsi fekk naa ko fa daaw jéeg dama koo séen nag su ma ca jotoon ceetëtë bàkke mhm. bu ma yonante ba mayoon kaab ma turki yëkkati kàddu yi fii ñaan yàlla fekke déwén te ko yal yàlla yokk barke ci daara ji yokk barke ci dëkk bi yokk barke ci bokk gi yàlla nañ dund ba déwén na ko sëñ Cheikh doon waxe am jàmm ba déwén am nañ mbégte lool ci li nu jël bés bi daldi koy terale Ali Imran bi nu nekk di jéem a ñoti ñoti maa ngi ànd ak sama xarit yeeg am di jàmm yeeg góor ñooy jànge ca daara ja jigéen ña fay jànge ak lenn ci selil yi nga xam ne ànd nañoo ñun rawatina bu Sàngalkam ànd ak seen njiit imam Ali Ba ngi ni toog da yàq gam gi kon nag sëñ Mbàkke loolu du lu tuuti lu rëy la ci noonu moo tax ku xool ni ñuy waxee xam ne sunu xol sedd na ndax man yàllaa ma xéewalee sunu mag ñi dañ ma neex lool sëñ Maodo damay def benn conférence ci Italie ma noppi am ku ma laaj laaj boobu lu tax loo wax rek tudd ca kenn ca mag ña ma ko benn sens rek nga ñàkk mooy Italie gisuma fi bëy ne damay jënd bëy may la ko dor laa tontu topp pël ba journaliste ba dafa ñëw jox ko micro kamera ne ko dama am laaj may laaj mu ne ko ban laaj mu ne ko kañ ngay kontaan ci àdduna pël ba woo doom ja sàmba daadal mu ne ko mu ne ko argaay mu ñëw mu ne ko tott mbeewoo <laughs> may ko bëy bala ma tontu laaj ba neex mu may ko bëy mu ne ko li nga ma laaj kañ lay kontaan mu ne mu ne ko su tawee ba sëbét courant coupé sama batterie làmp jeex di xor-xori ma jóge ci kër gi dox nag jëm ca gétt ga ci lay kontaan <laughs> waaye mantam tam sunu mag ñi man nun la mel ci ñoom ndax kat ah mu ngi noonu daal mag moo ci songu mbaa nga dugg këram gis la fa yonent ba am nga xam ni kii amul morom mag moo fi dugg këram yendu këram gis la fa yonent bi am nga xam ni kii amul morom loolu rek la nag ku ne cib tool nag mbàkki di xor-xor yi te foo bëgg rof sab gopp ñu ne diw bayoon na ko yor sab gopp di te foo ko rof ñu bayoon na ko te bi ñuy liggéey liggéey nekk feeg tubaab bi fii leen jëm si woon kon nag jërë ngeen jëf ñépp jërë ngeen jëf yàlla na nu bokk fekkee déwén yàlla nañ bokk fekkee déwén yàlla na yàlla yokk barke wér-gi-yaram yombatul léegi waaye yàlla na ko yàlla may wér-gi-yaram yombatul léegi sëriñ Fallou daana wax ne nit ñi ñépp a feebar koo gis rek nee koy mbaa yaa ngi tane koo gis laaj ko mbaa yaa waaye mbaa feebaroo sëriñ Fallou nee na na bu yàgg sëñ lab daal mu ne koo gisit bu ko wax euh, bu ko wax euh, noo def neel rek mba wóppoo mu ne ndax ñëppañ ci wopp ji kon nag yàlla yàlla yàlla saafaranu jikko yi nga xam ni nit ñi jàpp ni jikko yi dafa feebar yàlla yàlla saafara jikko yi waaye daal yonent bi indi woon mag ñi jàngal nu ko li feeg noo ngi cay jàpp du dañ di baax li fi xor-xor yi liggéey nañ ci lu rëy a rëy rëy jërë jëf maa ngi fab nuyoo yépp nag teg ci sa loxo suñu Cheikh waaye masawu la nag ci gàmm gi <laughs> xam naa gaayee lay yebal ndax yaay seen porte parole waaye li ngay ñëw ci kër gi moom defe naa deux semaines jot mu ne ma yaa ngi ci kër ga hmm. mu ne waaw mu ne ma gaasuwaal ma ne ko gaasuwaal bu ñëwoon na di yaa ngi ci kër ga mu ne waaw mu ne ma jaar rekk tabarkalla yàlla na yàlla fay la ci loolu gis naa bi ma ko waxee gaa yi yëkkat seen bopp ne ma nii kon c'est bon loolu munta ñàkk ci ci ci famille lu dëgg ndax góor ga dañ na ko adiyay doom bu ci gën mu ni juboo addiyay ji doom di adiyal bayam jën adiyay ci gën mu ni addiyay hmm? waaw jubo rek tabarkalla mak top mak top rak yërëm rak rak top mak kott kott yol yol ban aksi nañ ci jamm non la di yàlla ko kon nak Cheikh jeuf yalla yalla jappale len yeen ñepp nuyo bi buñ ko tege sa lox dang ko mëna jox ñepp daare Ali Imran nak ci ko ba ci suuf ñepp bet ñepp bet sama xame yak sama am di jammi ñepp bet dama kay waxon ci tafsir be nu luñ mako defale ndax moy tafsir bagal, mana nun ñepp nañ dajé daru gay ngeen sagalé ma ñi ngi ni sama ginnaw buma len limé duma matal suma len limé duma matal waaw and ak man tabarkàlla ñew ci gam gi ndax lan gam gi dañ na suñu gàmmoo yalla ñu dund ba nu waat gan ñi door ak si ngi len di ak ziar gan ñi fi nekkon nek ñu leen ak ziar monsieur le préfet ñu ngi len ndokkeel ak ziar waaw waaw comme nun conseil économique le nu social et environnemental <laughs> du dëgg de kon kon préfet noo ngi lay nuyu ndax nun nga dalal waaw macha allah kon sëñ Mbàkke rek tàggoo bu dul tàggoo man ak genn ñaan rek la am mooy yal na seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mu yebal sëriñ Souhaïbou mu ñëw sëriñ Souhaïbou it mu ñëw fii ci ñaari wàll ci sëriñ Muntaqa beneen ñaareel bi di ci soxna Baali moo tax mu ñëw moo tax oustaz moo tax xat na ci yow oustaz Alioune sal waye serigne Cheikh nee nga may ñu tuuti rek. ñu dalal serigne bi. ñu dalal sëriñ bi. ndax yef yi. nee ndax yëf yii. ñun ñoko bok bokk. bo na ñu ni tudde nañu mbir mi Daara Ali Imran. dafa am lu ñuy feddali. ndax nee ndax ñun ak yow. muy oustaz Alioune Sall mii. démb la woon du tay nee fi kat bu fi ñew nee na ñun saa yi ñu jàppee suñu datu gàmmu. defuñu ko ci calendrier. nee na defuñu ko ci calendrier. dañuy jekki-jekki jàpp ko. oustaz moom ci calendrier lay dox. fukki weer ak ñaar yëpp. fukki yi ak ñaar yëpp. am na ci bis. am na ci bis. waaye bis bu ñu tànn ci ñun. waaye bis bu ñu tànn ci ñun. sëriñ Mbàkke si la xam na li ñu wax. nee na day wàcc lépp jàpp bis bii. ndax fii nga xam ni. yàlla. lañ fiy wut ñun ñëpp nee na moo tax ñu ñëw fi nee na oustaz loolu tax ñu ngi lay sant bu baax ci suñu tuuru ay mag nee na ka jiitu ci mag ñi mooy Cheikh Gaye mooy suñu kilifa nee na mu doyloo ñu doyloo Pape Gaye lépp mu bàyyi koog Pape Gaye nee na Pape Gaye doyloo ko moom Cheikh gay mi di ko surveiller nee suma su ma jàddee mu ma jubbantikul nee na su ko defee nee na loolu mooy kaddu yi nee na oustaz Sall ñi ngi lay sant bu baax nee na xam naa amuloo jot waaye nee nga may ñu diir rek ñu eggale tuuti rek alaykum wa rahmatullah. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi. maa ngi yëkkati ay kàddu yoo xam ni mënoon naa ko bañ a def waaye ndigal sunu mag ju baax ja Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour daan na wax ni ndigal soo mënee defal soo mënul defal kon maa ngi yëkkati kàddu yu sell jagle ko kilifa yi nga xam ni fekk nañ leen ci jataay bi ma jiital ci sunu mag sunu doomu baay bii doon waxtaan léegi di Seydi Alioune Sall nga xam ni man day fàttali na ma lu bari ndax dafa mel ni conférence la waxoon ni moom la ñu daje waaye dafa mel ni gàmmu na gàmmu gi ba noppi kon Serigne Alioune maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziyaara fàttali nga ma la sa papa alxaji Ahmed Cissé daan wax daf daan wax ni mag mu nekk am nga matt goo xam ne ma nga ca àll ba te boo sañoon di nga am ku la ko jëlali daan na wax nag ñu mel ni yéen nga xam ni yéen ngi waxtaan ci rajo bi nee na daan wax ne noppal ngeen ko lool noppal ngeen mag ñooñu lool moom dey daan na leen gërëm bu baax a baax wax na ko Ahmed Iyane Thiam ba tey ma di ko dégg ma fekke ko loolu moo tax bi ngay waxtaan sama xel dem na ci loola kon mel na ne matt yooyu yow day bokk nga ci ñi nga xam ni yaa ngi jëli matti mag ñooñu nga xam ni ñoom moom ngay tudd toujours nga di leen def référence kon jërëjëf Sall maa ngi lay nuyu maa ngi lay gërëm maa ngi lay ziyaara di nuyu kilifa yi nga xam ni doot si nañ ci place bi maa ngi ci toddu sëriñ euh, le préfet jibi jàlloo di sunu doomu baay di sunu xarit di sunu soppe di sunu wolare Djibi jàlloo ku baax la man dama koy jëw toujours defe naa Seydi Alioune yaag moom bokk ngeen ay jataay ba tey ci sëriñ Abdoul Aziz Al Amin nekk ci wetam ci saa su nekk ak Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour loolu musul deñ ba tey jii muy ku bëgg lislaam muy ku bëgg xadara bi ku jeex ci tàkk nag man damay toog maak sama waa kër ma di ko jëw su ma dee seetaan télévision ma ni waa man de jibi daal jaaxal na bis bu yàlla sakk mu jógee Dakar dem bur burdi Tiwaawan loolu pas-pas rek ko man kon jibi ñoo ngi lay gërëm ñoo ngi lay nuyu di sant bu baax a baax ñaan yàlla yàlla dëgër sa taxawaay sa jëf rafet na sa jikko rafet na sa pas-pas mat na sëkk yal na la yàlla fay di nuyu sëñ Abdou Gajaga ak ñi nga xam ni ñoo fi ñëw bokk ci famille Gajaga nga xam ni ñoo bokk tey xadara bi bokk lépp ma nuyu tamit Serigne Cheikh waaye ma jaari ko ci Serigne Cheikh mi tey mu jotalal ma ko njabootuk sama ndijaay Alxaaji Ahmadou Gaye man fii njaboot laa fi yàlla dogal na góor gi sama ndijaay la tey xam naa kaala gi ma sol kaala gi ma yor sax dama ko war a takk ci ndigg li ndax lépp luñ fi war a defar tey wala luñ fi war a organiser man maa ko war a organiser kon cheikh mii tey sama doom ndijaay la sabab sang la kon ak njaboot gi nga xam ni ñoom la àndal al oustaz nger xam na ci dara ndax ñëw na ba tey ci sama yaay bi ma meññ mu di ko waxtaane ak moom li mu doon wax ni mandat yooyu man mii jëlale naa sama baay Alaaji Amar Cissé mandat ba tàyyi bu jóge ci Papa Alaaji Amar Gueye jëlale naa ko sama yaay soxna ware ba tàyyi loolu du benn du ñaar mu doon nit ku baax nit ku am pas-pas nitu lislaam nitu diine nit koo xam ni kii lépp loo xam ni mooy eh, royukaay góor googu nekkoon na royukaay ci lislaam nooy na rekkoon ko na royukaay ci réew mi di nuyu délégation bi nga xam ni sunu mag du baax ji ci tuuba di sëriñ Muntaxa yebal na doomam bii di sëriñ soy bi di sunu doom di ko ziyaara di ko sant di ko gërëm ah sëriñ Muntaxa dey man mën naa wax ci moom lu bari su ma ci doon wax mën naa ci wax ba ëllëg ndax yàlla dafa ñoo boole yàgg na waaye man day mosuma gis ku mel ni moom ci mbaax ak yaatu ak tab ak pas-pas ak nekk gëm li mu gëm nekk ci li mu nekk moo tax bii ko yàlla dogalee mu nekk xalifa maam Serigne Touba ma ne lii wallahi yelloon na ko te yeyoon na ko ndax doxee na ko waxee na ko jëfee na ko démb laata tey soog a ñëw kon sëriñ Soy bi ñoo ngi lay nuyu di la ziyaare boo demee nuyul ñu sunu mag ju baax jooj jooji ñaanal ko yàlla yit mu yàgg fi lool ñaanal ko yàlla mu yàgg fi lool. di nuyu kilifa yi nga xam ne fekk nañ leen fi rot si nañ fi du nekkul loo xam ne lu ñu mën a waxaat la ndax luñ fi war a wax rek oustaz Alioune Sall wax na ko al imam Sall jërëjëf Serigne euh, Mbacke Sylla jërëjëf kontaan nañu bu baax al oustaz imam Nguer jërëjëf ndax li ngeen fi ngeen taxaw ñun ngeen fi taxawal xam ngeen ko nag ñun sunuy programme dafa bari waaye lañu bàyyi ba ñëw fii ma ñëw fii ànd ak sama rakk ju baax ji di Alaaji Mbàkke di suñu doomu bàyyi Cheikh Coro mu sunu maam Cheikh Anta Mbàkke borom Daaru Salaam sëriñ Alaaji Mbàkke e, moom la sëriñ Cheikh mi yemaloon ci man moo ndil ma bataaxal bi wax ma bis bi waaye dama ko ne ren moom xat-xat naa lool waaye il faut dem moo tax moom itam ñëw na ànd ceeg yéen ju mat sëkk ànd ceeg pas-pas bu mag sët sëkk toogal fi tam magam sëriñ siidi ak mboolem koo xam ni bokk na ci Daaru Salaam waaye ñoom ñëpp tey ñu ngi ci suufu sëriñ soy bu mi tey nga xam ni tey moo fi toogal xalifatul am fi tarixatil muridiya sëriñ euh, Cheikh Muntaxa Mbàkke yan na yàlla may ko wér ak gudd fan ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp ñaan yàlla daayal jotaay bi yan na ko yàlla yàggal maa ngi nuyu bu baax soxna Awa di nuyu Eh, njabootug sama baay alxaaji Amadou Gaye yëpp Pape Gaye maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu njaboot gi yëpp bàyyiwuma kenn ndaw fekk eh, lii dafay teraanga rek ñu jox ma ko ma war ci sànni kàddu waaye wallahi eh, li alin Alioune Sall wax kenn mënutul wax lu ko raw kon jële jëf ñoo ngi ñaan yàlla ku fi ñëw yal na yàlla faj sa aajo zahiran wa batinan bi barakati rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh son excellence yebal muy serigne Omar Gueye alhaji Omar Gueye mo représenter son excellence le président Macky Sall ñu koy jox wàccu wayam bu baax waye fekk na fi itam mbokam magam di taawu kër gi di serigne Diop mii moo dalal ci turu famille bi yépp waaye sëriñ bi nee na fekk ngeen fii itam seeni mbokki bopp waa kër mam Cheikh Seydil Hadji malik ak waa kër mam Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul sëriñ Souaibou sànq ba léegi mi ngi fi toog di sëriñ doomi sëriñ Muntaqa xalif général des Tidiane mi ngi fi toog tabarakallahu moy domi serigne muntaka serigne shuaib mi kero bi nga xamanteni ni mu'tamar bi doon def tiwaawoon ci waajtaayu gamo gi mom mi la serigne shuaib la serigne bi yebal jaarale ko Cheikh Ahmed Tidiane gay mi moko teru teeru yóbbu ko ci serigne Sidi Ahmed Sy bu Cheikh Sidi El Hadji abdou Dabakh mu ànd ak moom ba ñu dem ci cérémonie bi ba mu jeex mu àndaat ak moom gunge ko ba mu dellu Touba Mbakke kon tey bu dellu si waatee fii sëriñ bi yebal ko jaare lawaat ko ci Cheikh Gueye mu dugg ci famille bi laaxar xarwa ñu ngi koy dalal jàmm waaye fekk nga fi sa mbokk wala sa mbokk fekk na la fi ngeen fekkante fi di sëriñ Moustapha si bu bu suñu bàyyi Thierno Seydou nooru si bu Cheikh Seydou El Hadji Abdou Aziz Dabakh sëriñ Moustapha mi ngi ci jataay bi waaye dafa ñëw rek ni moom taalibe la fi njaboot la fi toog fële ci ginnaaw ñu ni ko agsil ci kanam mu gàntal kon ñu ni sëriñ saaliw sëriñ xaadim mbàkke bu sëriñ Moustapha bu sëriñ saalix mi ngi woon ci jataay bi tabaarakallaahu mi ngi ci jataay bi kon sëriñ bi nee na dañuy jox sëriñ Pape Alioune Gadiaga mi nga xamante ni ñaari tànk la fi teewe tey benn bi mooy njaboot la ci kër gi te ko gis annonce biñ doon def ci tele bi mu jël kàddu yëgle tabaarakallaahu moom la ñuy jox mu waxtaan en ñu tàmbali cérémonie bi waaye dafay teewaaleel le directeur général des yi de domaines muy Cheikh Ahmed Ba Serigne Diagne njaboot gi ñépp ku fi teew yow la fi teewal yaa dalal ñépp yow yaay ndeyi dëkk bi yaay monsieur le maire te xam nañ sa pas-pas ak sa taxawaay ci kër gi tabaarakallaahu ñu ngi lay ñaanal yàlla sutura yàlla dolli say may bi jaay saydil wara sallallahu alayhi wa sallam ba li nga bëgg liggéey nga liggéey ko kon sëriñ pap dañ lay jox kàddu gi rek ci ndigalu sëriñ cheikh nga tàmbali waxtaan wi insha allah aouzu billahi samil alim min alsheytani rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتصرف في الملك والملكوت الباخي الذي لا يفنى ولا يموت الخائل في محكم التنزيل إنا نحن نرث الأرض ومن علينا وإلينا يرجعون والصلاة والسلام على سراج المنير معلم الإنسانية وهادي البصرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي محى الله به الظلام وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور أيها الإخوة الكرام والأخوات نحييكم بأحسن تحية الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu mbokk yi fi daje yépp mbokki jullit yi yu góor yi ak yu jigéen yi mag ñi ak ndaw ñi di jiital ci nuyoo bi boroom daara ji ak ilimaani dëkk bi di ci teg kilifa yu tedd yi ñu fi fekk di ci jiital sëriñ Soxaybu Mbakke bu Cheikh Mouhamadul Mourtaka xalif général de Mouride di ko jox wàccuwaayam di ko jox nuyoo kilifa gu tedd ga di ci teg sëriñ Moustapha Sy teewal fi xalif général de Tidiane sëriñ Mouhamadul sëriñ Mbay Sy Mansour teewal famille Seydil Hadji Malick yépp nuyu fami Baye Gaye tàmba commencé ko ci xalifaam bi ci mag ba ki ci gën a nekk xale nuyu seen porte-parole di leen doxal Cheikh Ahmed Tidiane Gaye nuyu suñu yaay yi ci biir kër gi soxna Fatou ak soxna Kiné nuyu njaboot gu tedd gi fi nekk yépp di nuyu ministre bi fi teewal borom réew mi di alxaaji Omar Guèye ak monsieur le maire xaaji Ndiagne Diop wala waaw di nuyut suñu wëllëre bi toogoon fi léegi di suñu xarit nga xam ni ku min xadara al malikiya attiwaawuniya min nga ko muy Mouhamad préfet Diallo bi toogoon fii ak ñun léegi di nuyu nag mbooleem ñi fi ñëw délégation soxna Baali Muntaqa ñi ngi koy nuyu moom itam ah di nuyu suñu député itam soxla soxna Musli Jaxate di ko nuyu bu baax tabaarakallaahu ni ko seex waxe rek ala azimu layla alwiladati izbatan ida lam yakun naxwa alxaraami udulu ayo dañ ni kuko genn ci aduna rek boo tënkoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara desatu fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafni bu'istu li utammima makarim al akhlaq man te loolu histoire la bo xamni dañu ko bëgg xass ni ko yow ak nit ñi yéen ñépp yéen yam nit nga rek li nga ñu bëgg a indil ñun gëmunu la te du lu yàlla wax ñoo yam ak yow yamal rek ci sa niveau dañ lay waxloo nga waxal mu ni mais du waxloo kese du man yonent bi kese du nit kese laa qul innama ana basharum mislukum mais li ma tàqale ak yéen mooy yuuxaa ilayya ki wax ak man waxut ak yéen mooy jibril moom la yàlla wax muy ñëw di wax ak man teg waxut ak yéen kon mënuma yem ak yéen bi ci desit dafa am lu ma fekk ba tax may wax mooy jamono dafa yàqu addu kalpe moo fi nekk ku man sa moroom duma nit ñi nuy nekkal di dund kuñ ci jël seen bakkan nit ñi di xotti seeni yére di yuuxu di rayante di xotti seeni mbubb di xus seeni kawar di rey xale yu jigéen yi di suul di rey góor ñi di suul jikko taxawul mu ni bu'istu li utammima makaarimal axlaq dama ñëw ngir jikko yu tedd yi nu manqué te amul ci société bi man Muhammad ma ñëw mottali loolu kon nekkuma nit simple am ku ko woy wax ko ni ñu ni Muhammad basharun rek mu ni làkkal bashar bal xajarun bayna na yaquutata bayna al xeer na ci biir xeer yi wu nekk wurus wu yëmuta xeer yi mu muhammad it mënta yem ak doomu aadama yi kooku lañu tàntale tàntal li ñu ko tàntale nag mooy war koo waxtaane buñ ko waxtaanee moom jikko yu yàq yi defar àdduna ndax yàlla daf ni du dama am sama xalifa rek sama xalima sawar a bind di bind nit dama leen bind ngir lan ngeen jaamu ma waaye bala ngeen maa jaamu ngeen xam ma ni ñu may xamee nag moo fi indi yonent bi ba tax na yemul ak nit ñi muhammad sallallahu alayhi wa sallam yitte jéem yépp di nit ñi xam kan mooy yàlla xamit naka la jaamoo yàlla loolu rek mooy mission yonent bi ñaari baat yooyu kan mooy yàlla naka la ñuy jaamoo yàlla mu mel ni loolu bu génnee ci jullit génn ci doomu aadama man nga dem yam ak bàyyi ma yi di dox ñàkk xam yàlla ñàkk xam ni nga koy jaamoo mën nañ leen a boole ak bàyyi ma ndax Seyd Cheikh Ahmed Tidiane def ni bu dee xiif lekk bëgg sëy sëy bëgg nelaw nelaw boo demee ci géttu xar ya fekk ko fa waaye nag li lay tàqale ak ñoom ba nga xam ni doo bàyyi ma ba boo bëggee lekk wax sa soxna mu defaral la plat bi gën ci yow bala nga ko lekk nga raxas say loxo ba mu sel wax bismillahi sante ko sa borom boo paree ni alhamdulillahi doo lekkee ni xar di lekk sa dignité tam bala nga koo defar ak sa personnalité ba nga nekk ci insaan yi jóge ci al insaan kese nekk al insaan kaamil da ngay defar sa comportement ba ni bàyyi ma di jëfandikoo ci mbedd yow nit ki di jëfandikoo ci mbedd mais soo demee ba ni bàyyi ma mel ci mbedd yow doomu aadama bi noonu ngay mel ci mbedd yaa ngay dellu ca yàlla noonu bu leen ca yeggal asfala saafiliina wàcc seen jikko xad xalaqna al insana fi ahsani taqwim summa radadnaaw asfala saafiliin ci bu xamul boppam waaye bu xamee boppam nag dina préparer boppam ba génn ci cadre boobu te nit li ko uutale ak bàyyi may ak lépp luy dund mooy nite gi Seydina Muhammad bëgg ñu am ko kooku nag la mag ñu baax ñi Cheikh Seydi El malik Malick Serigne teg bëtam moom Muhammad teg doxaliinam kii di Seydi El Hadji nu am ko ci mu ni wa laysa li amalun alxaaka yaa amali siwal mahabbati wa taazimi wa zalami xaadimu rasul def ba gën a jige ba gën a yomb neex a dégg man tur moo mën na tudd dindi naa ko tudd naa xaadimu rasul muy tekki lan di liggéeyal yonent bi di xool fa mu xool di teg la teg leen lu wuuteeg lii nekkuma ca Seydil Hadji bi mu wax ni si wal mahabbati wa taasimi wa salami sopp la cofeel goo xam ni duma gis kenn teg ko sa palaas màggal la màggal goo xam ni duma la yemale mbindeef mu yàlla bind ndax yàlla nee na yemoo kenn wasalam jafe jëlum nos bënn ko def ci bakkan bi jox la ko yow Seydina Muhammad ngay wax kotti kotti yolli yolli ma di la topp foo ma jëmalee ma jëme fa xëy na bés ni mag ñi Seydina Muhammad mën na maa gën a rëy tànk waaye bu teggee man Seydil Hadji Malick dinaa am yittey teg ca ñu daaneel tawarkal tabaarakallah tabarakallahu tabarakallahu mu ni lu am solo tànk bi mën na gën a rëy sama tànk mën na dem jële ji feneen fu ma jëlewul mën na xam lu ma xamul moo bind ñépp am na bis mu tàllal loxoom ni loxo bii sama loxo bii deret ji ciy daw mooy jiy daw ci deretu Seydina Muhammad waaye lim ma ëppale mooy ki mu waxal la kenn waxalul mooy sunu borom kon yëmut ak nit kooku nag moo indi lii indi suñu préfet jàllo sopp ko ba ñëw indi suñu ministre ba ñëw indi mag ñu baax ñii ngir lan nu waxtaane jikko yoo xam ni ku fi ñëw di nga mën a am loo delloo ci yonent bi mu am njariñ waaye di dajale di yuuxu rekk wala dajale di way kese yu kenn jëlewul dara taxul woon yonent bi taxul woon mag ñi ne ala azimu laylal wilaada su fekkee ni jikko dugg na roy yonent bi dugg ñu xam suñu waru gar gàmmu daal di dagan daal di taxaw bu wutee ak lii daganatul tabarakallah mu mel ni cheikh waxtaan wi dañu koy dagg ndax ñi war a gàmm guddi ñi ngi ñëw pour gàmm ñi war a waxtaan nit ñi ngi fi pour waxtaan te lii cérémonie officielle lañ ko tudde mooy réew moo gis dafa am lu koy doxal li koy doxal mooy dañuy bind nuñ koy waxee constitution réew sartu réew mi doxale ko ni nii lañ koy tënke pour réew mi dox teg ko ci ay loxo yoo xamante ni ñoo koy doxal loxo yooyee benn loxo moo ca rocci ko wala ay loxo ndax député yi ñu mel ni soxna musli ñëw fi teewal fi réew mi nga xam ni moom lan bokk war koo defar ñu war leen a déglu ñu wax leen li xew ci ruq yi wax leen li xew ci gox yi ak liy manqué ñu mën a toog ak président di ko ko wax mu man cee dëgg liggéey ñu mën a dem ca assemblée wax ko fa ñu man cee dëgg liggéey moo waral seen toowaay waaye bu fekkee puukare kese la wala ñu ñëw ñu ni Omar Gueye kese la jaratu ko mu mel ni man nag ginnaaw bi ma doonee maam ci kër gi doon nijaay ci kër gi tey dama indi yónnent boo xam ni su ma wëllëre bopp taq ci man ma taq ci moom muy Cheikh Ahmed Tidiane Ba directeur général impôt et domaine ñetti atangi dama fi yónni sumay ñëw dama wut keneen ñoy ànd mo doon wax waye nak ko amul la la gënal am la fa tay buma fi sësee ma jema wax rek ci turam ànd ak kan Cheikh mohammedul Kabir Gadiaga bi nekkal khalifa bi nekkal kilifa gi ci italy ak ci Europe yeb ak suñu wëllëre Serigne Fàllu mi ndjay di talibé Xaadimu Rasul di suñu wëllëre ak délégation bu am solo Serigne Moussa ñu ñëw teewal Cheikh Ahmed Tidiane Ba dindi naa njureel gi yépp tey ñëw teewal ko fi monsieur le ministre ñu wax la ni la wax na ni bu ñu ñëwee yow lañu ñu fiy fekk ndax gox bi ku ne xam na ni kenn mënu koo tudd te tudd ñu la kenn mënu koo tudd te tudd ñu Njaañ Mbeng ñun miin na leen lool te miinu miinu seen jëmm wala miinu seen jëf mais miin nañ seen jëf kon directeur général nee na Cheikh. li ko gën a mën a motiver ba tax gàmm gii du ko fàtte mu di ko ñor daara ji fi ne ñu samp ko fi nga xam ni lu nit def muy ndimbal soo ko dimbalewul ci yoonu yàlla sànni nga ko daara jooju tax na mu neex ko neex goo xamante ni nii fu gàmm gi amee dina yónni ay nit ñu ñëw teewal ko fi bis itam mi ngi ñëw mu ñëw fi sàkko fi ñaan nii àdduna bépp di sàkkoo ñaan ndax adduaa silaahul mumin jullit bu fàttee ñaan yàq na dundam ndax sunu borom dafa yonent bi daf koo laajal ni ko jikko yi dina yàqu ji ba kenn du xam fooy teg seen tànk mu ni ko bu boobaa nañu sax ci lii istixfaar ak dima ñaan yàqu-yàqu jikko yi duñu ci bokk kon jullit fu mu toll di ñaan lu di ñaan yàlla yàlla defar yépp yal yàlla defar faj aajo yi ñi fi ñëw ñépp yal na yàlla taxawu leen Ah, dëkk bi yal na bokk ci dëkk yi yàlla di saxal sutura ak teraanga ak képp ku fi ñëw ci barke mag ñi ko fi def Baye Ahmadou Gaye mi ko sanc ku ne xam na ni ku taxawal lu mel nii ci nit yàlla yi nga nit yàlla yi lii seen mission lépp mooy samp daara taxawal bis bu mel ñu ñëw di ca wax yonent bi muy sa cër ci moom kon yéen njaboot gi fee ñi ngi leen di indil yéen yóbbante boobu di am mbégte ci yéen di am contentement ci yéen di dolli nak suñu nuyo ak suñu ziar ci kilifa yu tedd yi nga xam ni ñoo taaral jataay bi ndax ku leen amul woon ci réew mii réew moo demit doo fa gis lu ni mel li Serigne Cheikh waxoon dafa gàtt noonu na Sénégal li fi yàlla am ci diine bu ko xeebee ñàkk wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ansubillahi min setan rajim bismillahi rahmaani rahim yàlla na yàlla daf ñu fekk déwén bu déwén bu naree naxaree yàlla na dàq ren fuuf ñu ngi gërëm képp ku fi teew góor jigéen mag ak ndaw di jiital si nuyoo bi monsieur le ministre Omar ak monsieur le ministre Serigne Diop di si teg honorable député Ndiagne Diop maire commune Bambilor euh, di si teg le préfet du département di suñu kilifa ñun ñëpp ndax ñun si moom lañu dépendre ñun chef du village yi di si teg le sous-préfet de l'arrondissement de Bambilor euh, di si teg adjoint ñu ngi gërëm këri diine yi fi nekk yëpp Tiwaawan Tuubaa Njaasaan pépp e, di ñaan yàlla yàlla nañ yàlla fekk déwén yàlla nañu fekkee déwén ñun ñëpp e, di sant yàlla bu baax e, ndax gàmm gi buñ koy door kenn ku ne dem nañ sa kër fëgg la wax la sunu bëgg bëgg nga def sa kemtilaay kàttan kon tey bés bii bésu sant yàlla la ak sant suñuy invité di leen ñaanal lépp lu ngeen man déwén yàlla nay asaka lu ngeen man ren yàlla nay asaka déwén di jël nuyoo chef du willage yi di ko teg si góor gi àll yu Ndiaye bu mbët muy suñu baay di suñu mag di suñu lépp e, di jël nuyoo góor waa kër Gay Gay Tamba di ko teg si al loxob alaaji Maodo Malick Gay suñu rakk la suñu xarit la suñu mbokk la suñu lépp la am na disponibilité disponibilité si lépp loo xam ne lu mel nii la lu ñu def si gox bi def na sa def na sa alalam def na si ak ak jotam kon alaaji Malick gay ñu ngi lay gërëm bu baax alaaji Malick nag bu jëlee jotam ak alalam di ko def si diine wàcc na leneen lu mu def lu dul loolu daa trahir waaye kon alaaji Malick ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla lépp loo xam ne li yaa ngi koy séq ak say mag ak say rakk na yàlla defal la si ndam defal la ko bépp jullit ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm mu allahumma salli ala sayyidina muhammad auzu billahi mina sheytaani rajim asalaamualeykum mbokki jullit yi monsieur le ministre de la pêche ñu ngi lay nuyu di daal dalal ci commune Bambilor di rafetlu sa teewaay ndax bi ñu agsee bi ñu demee ci kër gi damay fedd li kàddu yu Cheikh Ahmed Tidiane ngay wax ci yow que kër gi doom nga fi loolu ñun mën nañ ko seede bu ñu ñëwee fii ci mbooloo mi mën nañoo seede ndonte président moo la yónni waaye président dafa jël doomu kër gi yónniwaat ko ci kër gi kon ñu ngi lay nuyu di la dalal fii ci kër suñu bàyyi muy Daaru Gaye di nuyu monsieur le préfet de l'arrondissement de Bambilor de monsieur le préfet de la du département de Rufisque di nuyu monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bambilor di nuyu adjointe mais di nuyu kon kenn koo xam ne royuwaay la ci ñun ndaw yi def politique da yàlla dénk ñu ci ay responsabilité muy suñu kilifa monsieur le ministre Serigne Diop monsieur ministre ñu lay nuyu sëriñ bi wax na ko léegi yaakaar naa at mu jot bi góor guy dund ba bés ni ki tey at mu jot ñooy bokk tànt bi yàlla nañ yàgg teewe ak yu bari di nuyu suñu sëriñ muy sëriñ Moustapha Sy di nuyu sëriñ Moustapha Mbacke mais di nuyu sëriñ bu Mbacke mi nga xam ne tey mën nañ ne sëriñ Touba teew na fi tey ndax moo ko fi teewal di nuyu sëriñ Moustapha Kounté mais di beral nuyoo sama collègue sama sœur l'honorable député musli jaxate xam naa ni mu demee ci biir kër gi muy at yu bari di nuyu délégation yi fi ñëw yépp ndax nag bés bi bésu département wu Tëngéej la bésu senegal ndax ki bés bi tax nit ñi jóg dayaam ci réew mi muy suñu bàyyi di nuyu njabootu suñu bàyyi jël nuyu yu sel yu tedd tek ko ci yor kaddu kër gi muy suñu frère cheikh ahmed tidiane gay di nuyu kilifa sama xarit le directeur des impôts yabal ko at mu jot ñu tajé fi maa ngi lay nuyu di la yóbbante nuyu cheikh ahmed tidiane gay yakarna kaddu yu warna man bañ guddu ndax li ñuy def mooy ñaan suñu boroom li ñuy dajale fii yàlla nañu yàlla may kàttan ba at mu jot ñu dajawaat fii di ñaanal di sàkku barke ci tànt bu ñuy tàntal yonent bi at mu jot ci fii Cheikh Ahmed Tidiane daf ko wax ci biir néeg bi diggante seen diggante ak Maodo Cheikh Ahmed mooy seen rakk ngeen bàyyi ko fii góor gi wóolu woon ko mais ñu nit wóolu nañ ko ndax lépp lu ñu soxla ci kër gi bu nu ñëwee ci Maodo dinañu ko yombal kon Maodo manuma def lu dul gërëm la sant la si mbégte mi say mag am ci yow ndax nag bii la say mag wóoloo ba bàyyi la ci kër gi jëf nga lu raw seen njorto ci bàyyi gi ñu la bàyyi ci biir kër gi kon maa ngi lay ñaanal ci barke boroom guddi gi yal na yàlla yokk sa fan yal na yàlla yokk sa wér di dalal sama président groupe parlementaire eh, muy l'honorable député Aïra Meirou Gningue sànq rek maa ngi wax Maodo na ko président ay Meirou woo na ne ma du ma dugg ci sa commune wala ci commune jàmbur di fa toog te du ma oo maire ba rawatina ngay sama collègue député donc président ñu ngi lay dalal sa sœur sa collègue Mously Diakhaté mu ngi ne ci sa wet di doom ci kër gi ñu bokk bés bi tey damay bañ guddal kàddu yi mais li may sàkku ci mbooloo mi xam naa ndawal président dina ko wax waaye mënuñoo nekk maire dëkk ci commune Bambilor nekk maire bi ñu am bés boo xam ne dañu yaakaar askan wi am kilifa ñu am ci moom yaakaar muy président de la république ñu toog fii te duñu sàkku ci mbooloo mi ñu ñaanal ko bés bi nga xam ne moom la Sénégal jublu yàlla def ko muy bés bu sedd yàlla def ko mu nekk it ndam loo xam ne mooy sénégalais yi jël seen baat ak seen kàddu dénkaat ko réew mi lu tolloog juróomi at loolu sëriñ bi ci sa barke jur ñu ngi koy sàkku ak doomi soxna yi fi toog yépp kenn ku ci ne ñaanal président de la république ndax nag bu dee jëf ci réew mi jëf na lu tax te xam naa le ministre ndawam bu jëlee kàddu dina gën a waxaat ak doomu aadama yi dina gën a waxaat ak nit ñi jëf ci président Macky Sall ba loolu war a tax ñu sàkkuñu ñu ñaanal ko yàlla may ko deuxième mandat au soir du 24 février loolu moo di woon kàddu yu ma amoon pour wax ko ak nit ñi di leen gërëm bu baax di leen sant wasalaam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 Euh, te ma gis fi ñu bari ñoo xam ne euh, dañoo nekk sama ay bokki deret ma bokk ñoom maharam ma fekk leen fi ñuy dox tànk yi tax ma jóge Touba ba fii ngir teewe jataay bii ñoom tamit ñu koy dox kon ñooñu maa ngi leen di jiital ci nuyoo bi lu baree baree bari euh, di nuyu Euh, euh, njabootug Serigne Ahmadou Gaye di ko teg ci loxob Cheikh Ahmad Tidiane Gaye euh, ngir mu jot lul ñu ko ci mboolem njaboot gi ak dëkkandoo yi ak wëllëre yi ak xarit yi di si teg ñi nga xam ne ñoom la yàlla def ñu nekk suñu ay kilifa ci wàllu àdduna Digital, euh, le ministre de la pêche monsieur le ministre de la pêche avec le maire de la commune euh, avec le président du groupe parlementaire Benoît Bokk euh, euh, le préfet du département avec euh, le sous-préfet je ngi leen nuyu lu bare bare di len jox ndaxte eh, yaakaar naa ne kenn ku ci ne fa nga nekk yor fa ay ndombay tànk dafa tegtale ne fa nga dëkk ñoo la tànn ci seen biir doy loola ci seen mbiri àdduna kon yaakaar naa ne loolu doy na nekk kilifa ñu ngi leen di nuyu di leen eh, sargal te di leen ñaanal suñ boroom defal leen ndam ci liggéey bi nga xam ne moom ngeen di liggéey ngir ña leen tànn ci seen biir jiital leen Eh, may wat di nuyu lu bare bare njabotuk borom bis bi mu cheikh eh, eh, hadji amadou gay di ko wat ci cheikh ahmad Tijan nga xamne moy suñu buntu ci kër gi nga xamne ne yaakar naane kuko gis euh gis xam ko da nga xamne nit la ko xamne euh Euh, dafay rëflete way juram ku ko xamul tamit boo ko gisee danga xam ne moom kat rëfle la ci way juram maanaam mën na li ñuy gis ci seetu ku ku gisut baayam boo ko gisee war a mën a xam ne kat baayam euh, ku fonk diine la ku fonk lislaam la ku xam boppam la euh, ku nangu kilifteef la ku nangu dogalub yàlla la ak yeneeni qualité yoo xam ne yépp ku ko gis xam ne boo xamutoon way juram tamit xam ne loole ay jikko la ak yeneen yoo xam ne kenn mënu koo lim daje woon na si way juram ndaxte moom kat euh, xam nañ ne am na wàccuwaay fu ne waaye nag wàccuwaayu fi ma jógee euh, wàccuwaay boobee mu fa am moo waral lii te xam nañ ne way juram tamit wàccuwaay booba la fa amoon euh, ndaxte moo ko may li tax mu mën a am wàccuwaay boobu foofu moo ko yar ci loolu tàggat ko ci tàggat ko ci diine tàggat ko ci ak njub tàggat ko ci fonk kilifteef tàggat ko ci euh, jëflante bu rafet loolu yaakaar naa ne bu ma ko waxee ci moom dafa fekk ne mooy suñu buntu ci kër gi waaye njaboot gi yépp ñama ca ñama ca xamut am naa yaakaar ju rëy ne wala sax ma am ci yaqin ne loola moo nekk si ñoom kon li ñuy def mooy dañ leen di ñaanal ci turu sëriñ bi suñu borom taxawu njabootu euh, alxaaji Amadou Gaye sàmm leen te euh, làq leen niñ koy waxee fu yàq àggul ya naa ne sax loolu moom mucc ngeen ci ci dogalub suñu borom alhamdulillah eh, ndaxte ku ñëw fii eh, gis ñu fiy taxawal bis bu mel nii da nga xam ne kat ki waral ñu fiy def bis bu mel nii bàyyi woon na xel ginnaawam te yaakaar naa ne nit bu dee dund ci kaw suuf war naa xel la jàll mu mën caa jànge badu du euh, def ay njuumte waaye war naa mën a fexal euh, fexe rafetal defar bu baax fa mu toll ci jamono jëmi dunde ci ay jëflante la man ci lu baax lépp mu koy def waaye tamit war naa bàyyi xel tamit ginnaawam yaakaar naa ne ku jàngat dunduk alxaaji ahmadu yaakaar naa ne loole danga ko ci fekk ndaxte ku taxawal euh, lu mel nii nekk ci dëkk bi muy daara ju nii waaye amuk njaboot yar leen ci diine bañ mën a wéyal loolu yaakaar naa ne loole ku koy def euh, xam nga ni nit war a euh, fexe ba defar ak dundam ba mu amal ko njariñ ginnaaw bu dund gi jeexee yaakaar naa ne lii lu koy amal njariñ la ca nekk ndaxte euh, yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne nit bu fekkee ne dafee bàyyee ko wan ginnaaw àdduna eh, am na ñetti yoo xam ne bu ko bàyyee ginnaaw day mel ne bàyyiwul dara lu gën loolu te day mel na tamit ay jëfam nam ko doon defe ca ba muy dund mi ngi continuer di ko defe noonu yaakaar naa ne yooyee bokkoon na ca lu mel ne daaray alquran wala lépp lu baax waaye bokk na ca tamit amuk njaboot yar leen yarub lislaam yarub lislaam ñu nekk ñu jub ñu tege ci yoon di la fàttaliku di la ñaanal waaye di woo seeni xarit seeni wóllëre seeni dëkkandoo ak seeni mbokk ñu leen di jàppale si ñaan googu yaakaar naa ne bis bii loolu lay firndeel du rekk dajaloo wax euh, daal di dem waaye li ci ëpp solo li tax mu gën a am solo mooy ñoom njaboot gii moo xam njabootuk deret gi nga xam ne moom la fi bàyyi waaye njaboot gi nga xam ne njabootuk ruux la nga xam ne euh, euh, lislaam moo leen boole woon euh, moo xam ñu nekkoon ci ay daaraam la wala ñoo xam ne daf leen dimbale ci seenum njàng wala ñoo xam ne dafa rafetal seenum dëkkandoo ñoom ñëpp bu ñuy wootee bis bu mel ni ñu dikk jàppale leen si ñaan yooyee yaakaar naa ne loolee Euh, rek mooy li nga xam ne moo ko mën a jariñ te fa mu nekk te yaakaar naa ne bis bii ñi fi teew ñëpp buñ bàyyee xel loolu bàyyee xel njariñ boobu yaakaar naa ne euh, dana nekk lu ama am solo loo xam ne saa su jàllee borom biñ ci fàttaliku borom bis bi dana euh, yàkkamti mu ñëwaat yaakaar naa ne kon loolu kenn ku ne war na cee bàyyi xel sëriñ Muntaxa nag bu ñu yónnee eh, fii ñu ñëw fi a jóge tuubaa nga xam ne mooy rek suñu yittee yaakaar naa ne loole eh, ku xamul Cheikh Mouhamadul Muntaxa ci jaxasoo ak moom tamit war nga see mën a jànge lu baree bare war nga see mën a jànge ne moom kat lañu suñu borom digaloon ci alquran eh, digal ñu ne yéen kat ay jullit ngeen waaye euh, bu ngeen bokkut fu ngeen jóge bokku leen mbokkuk deret tamit li leen boole moo ëpp solo loolu mooy al iman euh, mu wax ne innamal muminuuna ixwa kon yaakaar naa ne al uxuwa al islamiya euh, bu ci nit ñi bàyyee xel fonk ko gën koo jox gëdda mën na dem ba ñun ñu gën a bëggante sax ci ñoo xam ne dañoo bokk ndey ak baay te nekkuñ ci lislaam bu ñu fokkee bu ñu fonkee suñu ak mbokkoo ci lislaam mën nañ dem ba bëggantee noo xam ne day raw ñoo xam ne dañoo bokk ci deret bokk ndey ak baay waaye bokkuñ ci lislaam kon loolee sëriñ Muntaqa loolee rek ci lay dox ngir dundal al uxuwa al islaam muy mbokkook lislaam gi war a am mbokkook lislaam googu nag li koy dëgëral li tax mu rafet mooy dañuy bañ a tëjoonte ndaxte nit bu la xamalu dara rek mën na laa amee njortu mën naa njort ci yow donte la suñu borom sax digal nañu loolu ca saar wa mu waxee ñu fonk al uxwaan islaamiya ga ca saar woowee la waxaat ne dee leen moytu yenn njort yi yu ñaaw ci nit ki ndaxte loolu bàkkar la te lu ngeen xamul ci nit ki tamit euh, bu leen ko Jema, gestu lungen lu ngeen xamul ci nit ki bu len ko jema gestu moy tajassus wala tajassasu waya tamit lu ngeen xam ci nit ki ci mudi ab safan lu ngeen ko man ci sutural ko ak ngeen sutural ko sar wi suñu borom di waxe alu al islamiyya te bam koy wax waxut innamal muslimuna la wax innamal mu'minuna ikhwa ca sar wowe la waxat ne kat bàyyi xel ci ne euh, al iman mo gëna euh wor al islaam ndaxte qalat al a'rab amanna qul lam tuminu walakin qulu aslamna euh suñ borom fofu lam wax moy ba am ñu dik ne ko arabi kat ba am ñu waxé ne euh arabi kat duggu nañ ak gëm nañ suñ borom dafa leen xamal ne dëgg la mel nañ ne lu dugg ci lislaam bay def li waa lislaam di def waaye nag amuñu imaan kom kon nit war naa bàyyi xel si ne bu bëggee ak imaanam wér ndaxte imaan moo moo supérieur moo kawe euh, muslim maanaam mu'min moo kawe muslim kon innamal mu'minuuna ixwa liñ ci dégg mooy ne pour nga mën a am imaan gu wér da ngay amee al uxuwa al islamiya mooy ko bëgg wax koo gis rek mu di ab jullit nga jàppe ko ne sa moroom loolee nag li koy wane mooy demlante ak dikklante ak jëflante jëflante bu rafet ak yéenante jàmm yaakaar naa ne moo tax cheikhul xadim bari waa ne fu wax ne euh, euh, ñi nga xam ne ñooy samay euh, soppe xam ne dama leen bëgg ci sama xol ngir yàlla ñooñee ñam ca jiital mooy almuminuun suñ Sëriñ wax na ko lu bari ci ay bindam kon loolee lu mata a bàyyi waaye tamit ci saar woowee may wax noonee eh, lii tax ak kilifa baax ak fonk ko ci saar woowee muy suuratul xujuraat su ma ko tuddee ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom di jàngal uh, uh, ña nga xam ne ñoo àndoon moom nañ war a fonke kilifa ak nañ war a nekkeek moom yaakaar naa ne ca saar woowu ci la suñ borom di jàngale soxaaba yi nan lañ war a àndeek seen kilifa ndaxte nit mënta ñàkk kilifa bu kilifa amut fawda mooy am anarchie totale te loolu baaxul kon nit war naa am kilifa ci saar woowu la ko suñ borom jàngalee waaye tamit ca saar woowee la suñ boroom waxe si bu ay nit euh, jàppante ñu bokk ci njabootu lislaam nan lañ war a mën a fexe ba ñu àndaat amee al uxuwa al islaamiya ga euh, loolee tamit ca saar woowee la ko suñu boroom di jàngale kon loola lu mat a bàyyi xel la ndaxte jëm nañ ci jamono joo xam ne yaakaar naa ne day mel ne jamonoy xëccoo la euh, jamonoy xëccoo nag bu dikkee ay kàddu mën naa jóg ay dënn mën naa tàng luy nuru ak jaxasoo mën naa am waaye na ñëpp ñaan te dalal seen xel ne Sénégal suñu boroom daf ko may loo xam ne ñu bari rafle nañ ko ñu réew yu bari rafle nañ ko bëgg nañ ko waaye ñàkk nañ ko bu yàgg te mënuñ cee jotaat ñun nag ñu ngi des di ko am muy kilifa yoo xam ne bu ñu nee def leen ñu def bu ñu nee bàyyi leen ñu bàyyi loolu saa euh, euh, euh, ah, saa soo xamee ne rek réew mi mi ngi koy am mën nañoo am yaakaar si ne danañ dund si jàmm ju ëpp sax jañ wees woon danañ dund tamit ci xéewal yoo xam ne dafay ëpp la ñu wees woon te loole yaakaar naa am na ay indicateurs yu koy wane. kon euh, mën nañ euh, euh, ñaan ñun ñëpp ci li nga xam ne moom lañ jëm ñu ñaan si suñu borom def si jàmm def si ñu weesu ko weesu wuñ wa gën a rafet waaye nag tamit ñi nga xam ne ñoom la yàlla jiital damay wax ci ñëpp ñi yàlla mas jiital ñëpp ku yàlla jiital rek war ngaa bàyyi xel si ne responsabilité ba nga xam ne moo taxoon suñu borom subhanahu wa taala di tànn ay nit ñoo xam ne euh, moom moo leen di tànnal boppam indi leen ci doomu aadama yi ne leen kii kat maa ko tànn ci yéen def ko mu gën leen nga xam ne kenn ci dara nga bañ ko ak nga nangu ko lépp suñu borom moo ko tànnal boppam def ko mu gën ñu mu yónni ko ci ñun ngir mu ñu yoonu njub mustaqim ñooñee noone ku ci masa ñëw juróom Euh, yi ëpp solo ci nit nga xam ne saasu euh, lépp jaaree ci yoon rek àdduna lépp jaar ci yoon muy euh, sàmm doomu aadama yi ba bakkan kenn du ko jël wala aqi doomu aadama ci ëpp ko doole wala nga man ko wala ci yeneen yu mu mën a doon yeneente yi fi mas a jaar yépp bokk na ci li leen fi indi mooy sàmm nit ñi ba kenn ku ne am say hak waaye tamit sàmm derub nit ñi maanaam ba nga xam ne kenn du sañ a teg ci derub nit loo xam ne waroo ko caa teg ci tuuma wala sos wala lu mu mën a doon loolee tamit yaakaar naa ne ku yàlla jiital ci réew wala fu mu mën a doon war ngaa bàyyi xel si na loolu responsabilité la boo xam ne suñ borom teg na ko ci saw loos waaye tamit euh, sàmm askan wi askan wi si seen jëmi bopp nga sàmm leen ba nga xam ne comme ni ma ko waxee woon sànq ku tooñ ñu teg ko ci yoon waaye ku ñu tooñ ñu delloo ko ay xàqam euh, ak yu bëri yoo xam ne ay responsabilité la euh, yoo xam ne yonente yi fi mas a jaar yépp suñu borom da koo teg ci seenu loos yonente yooyu nag ay kilifa lañ buñ fi amatul tamit ñi leen di wuutu mooy yàlla jiital ci wàllu diine wala ci wàllu àdduna ndaxte al ulama warasatul anbiya ay yonente amul waaye ñi yàlla jiital moom duñ fi jóg ba mukk kon yaakaar naa ne ñoom ñëpp euh, loolu rek moo leen yëkkati woon yaakaar naa ne kii euh, ñuy defal bii tey tamit yaakaar naa ne ci loolu rek la nekkoon dafa defar boppam ba ñëpp xam ne defaru na waaye yamalewu ko foofu dafa fexe ba tasaare loolu tasaare ko ci nu koy tasaare mooy def lu mel ne jataay yu mel nii wala def lu mel ne ay daara ba lu baax li nekk ci moom mu fexe ba àggale ko ci ñeneeni nit euh, ñu bari ñoo xam ne mën naa am sax mbokkuk deret boolewu leen bokkuk dëkk boolewu leen waaye rek dafa yëg responsabilité euh, ci bu la yàlla defee kilifa euh, responsabilité bi nga xam ne moo tegu ci saw loos nga xam ne warul yam ci yow kon yaakaar naa kilifa gune war naa xam ne defar boppam moom doyul waaye da ngay defaru tey defare ki jiite tamit moom tamit dafay defar boppam waaye defar ñëpp tamit euh, ñim jilif kon daal euh, ci ñu bañ a guddal ndaxte ñi war a jël kàddu bari na dañ doon Euh, euh, euh, a jot ay kàddu yu gàttu rek ñi ngi maa ngi ànd ak maa ngi jéggulu sax sëriñ Muntaqa moom sëriñ Modou Boussa Dieng moom la ma sëriñ bi booleel muy sama mag mi ngi toog nale ñoo ànd sëriñ bi yabal ñu ak ak ak ak kilifa yi fi teew yépp moo ko moo xam njaboot la wala njabootuk yeneen kilifa kilifay diine yi fi teew ñépp fi baxril xikami defaral rajo bi tuuti mooy mu mi di kulli awliyaa illaahi